ñëw maire bi teeruñu waaye rawatina maire bi ah, sëñ Bassirou mi nga xam ni moo taxaw fii sëñ Bassirou Poroxaan ñëw dem fële ci bërëb ba moom ci boppam mu metre en marche maanaam forage bi nga xam ni moom la see defar mu nekk forage bu ñëw yokk ci forage yi fi am parce que yaa yaakaar naa ne am fi juróom juróomi forage bi moom mooy juróom-benneel waaye mu nekk forage boo xam ni suñ borom daf cee def sutura lu muy génne ci ndox moo ëpp yeneen forage yi di génne mën a jële ku ci nekk te dëkk mel nii nga xam ni mooy Poroxaan nga xam ni maanaam dëkku diine la di teeru ay millions yi ay gan euh, ñu yokk maanaam ndox mi dafay nekk loo xam ne lu am solo la te gëm nañ ni maanaam bu ñu réglewul lépp aussi maanaam lu bari sori na ci donc loolu nañ koy rafetlu parce que PUDC programme président Macky Sall la moom moo ko fi indi mu liggéey liggéey yu am solo PDC ba mu dalee tambali ba léegi yaakaar naa liggéey na ci ñaari téeméer ak fanweeru forage wala lu ko ëpp touti lu am solo la ci yu ñu war a war a def yoo xam ne financement bi taxaw na juróom-ñaar fukki forage dañ ko def bu neex yàlla donc loolu yëpp dañ koy def parce que dañu bëgg bu ëllëgee luy président di wax accès universel maanaam fépp foo nekk ci Sénégal nga am fa ndox mu nekk réalité mu nekk loo xam ni d'ici deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq Sénégal dana ko atteindre daan na ko sax. xaw na ko jege parce que boo jëlee ci wàllum ndoxum rural euh, boo jëlee téeméeri sénégalais juróom-ñeent fukk am nañu accès ci ndox donc loolu jéego yi am solo la maanaam ci wàllum rural donc lu ci des bëriwul te euh, lii ñuy liggéey ci wàllum de PUDC wàllum effort di liggéey aussi donc dana tax balaay date booy ma wax maanaam balaay deux mille vingt cinq bu neexee yàlla dañu am accès universel mais fii nag nga xam ne mooy Porokhane nga xam ne comme nag nu ma ko waxee ca njëlbeen dafa nekk lu am solo. forage bi ñëw na OFOR mi ngi def le réseau euh, manam de distribution manam raccordement yi def ko de telle sorte que ni ndox mi dana teew mais xam nañu aussi que ni dëkk bi day yokku comme dëkk bu yokk la dañu jëlaat yeneen motuwaay euh, pour que wàll ci wàllum ndox ak ci wàllu lu nga xam ne maanaam président de la république daf ñu ko dénk ci wàllum yooyu ñu taxawu ci de telle sorte que ni dëkk bi du am jafe-jafe yooyu te euh, gëm naan du ko am parce que dëkk bi am na taxawaay. am na vraiment des responsables yu fi nekk religieux yu am taxawaay yi nga xam ni ñoo ko téye bu baax a baax te loolu vraiment dañ koy rafetlu yëkkati nuyoo ak ziar teg ko ci loxo sëñ Bassirou mi mu jottali ko xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké ñaanal ko fan yu gudd ñaanal ko wér gu yaram bu mat sëkk ñun ay ndaw président rek la ñu bu ñu daf ñuy sant ñu ñëw te moom xam nañ taxawaay bu mu am ci diine gi. donc ci wetu baraama baayam sëñ Muntaxa Mbakke donc euh, ci wàllum PUDC ci wàllum maanaam Promoville wala wàllum Pima nga xam ne jumtuwaay lañ dékk maanaam le ministère de développement communautaire lu mun ci mën taxaw rek bu soobee suñu borom dañ ko ci taxaw. feegi fan incha allah murid yëpp fii daje nañuy daje Touba kon nag bu lool lu mel noonu amee nguur gi ni ko fi ministre bi waxee nekkal fi nit ñi nekkal fi askan wi fu seen soxla toll ñu ànd ko ñoom. seen xel ak seen seen seen euh, xalaat may leen ñu def fi forage bi ci fan yu gàtt ba ministre bi ñëw di di publicité gi ñun sant rek lañ ci am ndax wax naa ko léegi fekkoon na dëkk bi ñàkk ndox forage fi nekk ni ci ëpp dañoo kon nag wax dëgg yàlla bu lu mat lu matul fukki fan buñ ci gasee forage euh, seen yéene feeñ na ci wax na ko léegi yaakaar naa forage yi nekk yëpp moo ci ëpp ndox loolu nag wax dëgg yàlla yéen yéen ji ëpp ci feeñ rek la ak sama boroom ànd ci kon nag nun mënun dudul rek ni ko sëñ Mountakha waxee léegi ñu leen di gis sant ak gërëm ak ñaan loolu rek lan mën buñ santee nag ñu eh, bari sant nañu buñ gërëmee ñu bari gërëm nañu ñaan gi nag mooy sunu liggéey mooy mooy sunu lépp mooy sunu yaakaar te noo ñaan waxtu wu ne yàlla dooleel leen kattal leen kattanal leen ba yéene ji nga xam ne am nañ ko ci réew mi ñu àggale ko fañ ko bëgg te yàlla gërëm lépp réew mi it gërëm lépp